région de Kaolack euh, Momit it euh, a mi nga xamantene moy Covid 19 lal nako depuis depuis aljuma bi passé tolloog euh, ñaar fukki fan ak ñent ci wéru avril ci loolu nak ka bi ñing ko ñing ko némé ko ci district sanitaire Nioro commune bu Daaru Salam et village bi nga xamantene moy village Cheken Euh, ba fi ñu toll nii ñaari district ci biir euh, région de Kaolack ñoom ñoo am mbas mi muy district gu Nioro ak district gu Kaolack euh, lim bi ci ñi nga xamante ne ñoom ñoo am feebar bi ci biir région de Kaolack mi ngi toll ci juróomi nit mooy ñaari ñi nga xamante ne kenn ki ñi ngi ko ñi ngi ko nemmeekoo Nioro ak ki nga xam ne ñi ngi ko nemmeekoo fii Kaolack ñu doon ay cas communautaire cas communautaire yooyu nag am na ñu ñi nga xamante ne jot nañu woon nekk ay contact ak ñoom ci ñooñu jot nañu ci euh, lim lu tolloog téeméeri nit ak juróom-ñaar ci biir téeméeri nit ak juróom-ñaar yooyu euh, am na ci yeneen ñetti nit ñi ci ñi nga xam ne bi ñu nemmeekoo seen seen seen seen yaram gis nañ ne yore nañu doomu jàngoro ji euh, ci kaw loolu nag commité régional de gestion des épidémies jot na def ay liggéey jot na def benn liggéey li ñu njëkk a def mooy comme ni ma ko waxee saytu nañ ñooñ ba xam seen lim ni mu toll mooy ñi ñi feebar ñi ñu jotoon a mu ñu leen di tuddee euh, sujet contact yi ñu gis ne toll nañ ci téeméeri nit ak juróom-ñaar ñu jël leen nag euh, yóbbu leen ci ay réceptif hôtelier yi nga xamante ne ñoo nekk ci biir Kaolack gannaaw loolu jël nañ leen ñu prélever leen saytu seen yaram euh, ci juróom ñeen fukki résultat ak juróom-ñett yi ñu jotagum ñett ñëw nañ ci Euh, ñu gis ne ñetti nit am nañ ci doomu jàngoro bi ñetti nit yooyu nag ñooñu fii lañ leen di fajee ci Kaolack ñaari nit yi njëkk am doomu jàngoro bi ñooñu dañu leen transféré Dakar waaye ñetti nit ñi ngi ñi ñu mujjee jot seen résultat démb ñooñu ñi ngi leen di faj fii ci centre de traitement des épidémies bu hôpital régional de Kaolack léegi euh, kon prélevé nañ leen bi ñu leen prélever confiné confiné nañ leen ba pare recensé leen confiné leen ñu saytu seen yaram gannaaw loolu décontaminé nañu seen kër yi ak fi nga xamante ne foofu dañuy liggéeye euh, bi ñu weesoo loolu tamit euh, def nañ li ñuy tuddee accompagnement psychosocial ndax ñooñu tamit dañuy soxla ñu leen jàppale di leen di leen soutenir leen jërë ngeen jëf